nag ay change sur le tey ñoo ko gisandoo ñu jëm fee ca mbuur benn cas buñ ñu fa signalé mu sol ay bagages yu bari nga xam ne boo ko xoolee rek sa xel day dem ci aram tey waa cas urgent jóge fii jëm dakaar donte xëy na dakaar tey muy wàcce ay ndox muy taw muy naaj lu mu ci man di doon dañuy dem mbuur incha allahu rabbi fas yéene dimbale jaamu bi yàlla boobu duñ yem ci moom na képp ku nu romb ci yoon wi rek te yàlla boole la ci rek dinañ la dimbale waale ngeen nga mel nga war a mel allah. yàlla yaakar ci mom 200000 500000 1 million mo ñu gënal fat suñu morom jam bo xamanteni suñu borom dafa wacc ci mom tawatu wër di xel ñu abandoner ko ba nopi sanni ko ci mbedd ma waaw ñu wara a ko fi ci diwanu Dakar wuteli ci diwanu Mbour dem fekk ji fa malade mental comme ñuko bayas Bayaas muy waajo xam boko gisee rek da ngay xam ku soxla ndimbal la te bu and taxaw ñu wër di gaawul ci mom rek amana lu bari ci yaram bi mën naa ndax dafa bari doole ba pare nitu fitna la wa koñ bi wuñ ko njàqare motax ñu wol wa association an taxaw ñu wër di nak buñ fa war nañu dem ci beneen malade mental boo xam ne wax dëgg yàlla am na benn borom birig daal bu mu doon joteel mu jël ndox bu tàng sooda ko ba kanam gi yëpp yàqu loolu nag lekk lu ñuy méttilu di ko ñaawlu loolu moo gën a yokk tax tey ñu war a jóg ngir dem foofu ci diwaanu Mbuur waaye di wax ne ñu ngi fas yéene def loo xam ne yàkkamti woon nañ ko te namoon nañ ko lool muy taw ñu nekk sur le terrain ñu ngi ko gëjoon a def depuis daaw ndax xam nañ bu malade mental malade buñ tawtee seen yére yi day guus ci seen kaw bu ñu amul ku leen dimbali loolu moo tax seen yaram yi di dem ba saxe ndax yére ñuy sol mooy dem ba saxe ñuy gàttandu loolu balaa benn malade mental yéreen di guus ci kawam ñu fekko ko fa dimbali ko te jëm yàlla rek tax mu jaaxle lool heure ndékki bu jotee du ndékki bu heure añ jotee du añ kenn ku nekk ci ñun boo ko xoolee ci sa bopp bu heure ndékki jotee ten ok ñu nekkaat ci cas urgent bi comme nuñ ko doon defee rek rawatina si nawet bi ñu nekk ñu woo ñu ci benn cas bu ñu war a dem dimbali ko dimbali waale képp ki nga xamante ne nii yàlla boole na la si si yoon bi rek ñu jàpp ci te yàlla rek tax def comme ñu ko daan defee rek cas urgence sur le terrain. teg ko ci yoon rek dañ koy yóbbu ci yoon parce que ku àndut tak xelam tamit nga sotti ko ndox mu tàng ba pare teg ko ci maatay kooku criminel la kooku jarul ñu koy bàyyi ci réew mi kooku dañ koy teg ci yoon. ndékki woo foo mënti dugg danga fa dugg lijjanti loo ndékkee bu heure u añ jotee noonu bu heure u jotee noonu moom mi nga xamante ne suñu borom dafa wàcce ci moom tawatu wéré di xel ana tey bu heure ndekki jotee fan lay ndékkee bu heure u añ jotee fan lay añee te ñi nga xamante ne ñoom la yaakaar ni bu demee ci ñoom dinañ ko dimbali ci lu mu lekk dañ koy toroxal ba noppi daal di koy toroxal sànni ko ca mbedd ma te ñoom ñun ci ñun la ñu bokk nañu xam ne malade mental yi ci ñun la ñu bokk ma ne bul ko xalaat yow nit nit mooy sa garab xanaa gisoo gis sa wet dafa am feebaru xel yaa ngi romb noor ak na wet doo xel xamul lu saf mbaalu lewet yow xiif te du lekk mar te du naan ci mbedd mi lay fanaan yërmande foo ko romb aju mooy feebal te du faju jël ko pax ko toppatoo ko bu feebaree nga faj ko bul ko bàyyi ci mbedd mi ci sedd bi muy xiif ak ñu koy toroxal di ko sacrifier ngir alalu aduna li ñaaw na li dafa ñaaw bul ko jani bul ko xalam fexal utal ko barab xana gis lu nu mu mal dafa am feebaru xal bul ko jani bul ko xalam fexal utal ko barab xana gis lu nu mu mal dafa am ki jotee nga gis malaat mental bi sa buntu kër wala sa koñ wala fi nga dëkkee xamal ni xiif moo tax mu ñëw foofu noonu sa buntu kër te xamul nu mu la koy waxee yàlla joxu ko xel moom la mën a waxee ni dafa xiif nga daal di yëkkati li nga xamante ni moo di kaasu ndékki daal di ko koy jox te yàlla rek tax bu dee heure añ noonu bu dee heure reer noonu moom mi nga xam ni suñ borom dafa wàcce ci moom tawatu wére di xel moom de taw bi yëpp ci kawam lay taw waaye moom de nawet bi yëpp ci kawam lay jël ko fat ko topato ko bu feebaree nga fat ko yaram li rek doy na waa yërmande jël ko fat ko topato ko bu feebaree nga fat ko yaram li rek doy na waar yërmande Sénégal sunu gal la laaj sunu bi réew lu tax duñu bay xel ki am febaru xel ki ngay romb lu ko bu la jubé nga daw ko xana ga mo li yalla wax nit ku ne di nga dugg ci bax def ci lu bax ta yalla tax ta xam yalla limu bind nit la ci gën a bëgg te moom la yàlla teral yërmande ci yow la yaakaar boo tas yaakaar baay bay ci sa waar yërmande jël ko fat ko toppatoo ko toppatoo ko bu feebaree nga faj ko yërmande. aja ñëw leen ñëw leen bon man maladie faale ma leen dee yow Ahmed.

asalaamaaleykum ya bi wa jaajëf ku bax ñu ngi lay xaar waaw ñu ziar bax ba lepp lépp ba lepp lépp waaw tour bi nan la mbay ñing fan nga dekk mbuur gi la dekk mbuur gi nga dekk waaw euh sa tour way jur bu jigen nan la soxna njaay sa tour way jur bu góor wal ñing wal ñing waaw parce que yow fi sa keur la wala da nga ñew rek dekk wa fi sama keur la moom sama pap moko mom may dafa gañu ak wa ak ak ak mère bi quoi ak mère bi dañu gañu waaw parce que yow lan ngay liggey man euh damay teug sabar. Ah, da ngay teug sabar. waaw. parce que ñan ñokay fecc. ku ku ne ku ne ku ne fecc goor jigen ñep ñëpp. waaw ah, sa mboxloo. waaw ñëppay sa mboxloo waaw. Ah, xam nga lu doon suñu sunu fi hmm suñu teewaay fi mhm. xam nga ko. déedéet. waaw dañoo ñewon fi ngir dimbali la. Mhm. changer la sa yére yi la sa jëm ji jox la yére yi bees nga solo mhm. ñu defaral la fi ba mu baax te yàlla rek tax. deug la bu ngeen waxe loolu man na ne. góor góor di jigéen waaw góor il faut mu am loo xamante ne ni moom euh, moroomam du ko ko ñee bala du ko xañ ndaxte góor moom lu mu lox rek xamal dina ko def waaw góor lu mu lox rek xamal dina ko def ndax àdduna bi ñëpp bokk waaw ñi waaw lay bokk ñii dañ lay bokk bagage yu bëri yi nga def sa yére yi nii findi feer yeeg weñ yeeg chargeur yeeg lii pour lan la. waaw xam nga nit ñi yemuñu ndax wàll wi ñu ngi ci biir nit ñi waaw nit ñi baax ñu ngi ci biir nit ñi waaw nit ñi bon ñu ngi ci nit ñi am ñoo xamante ni boo la rek mën na laa lor waa xam nga góor di jigéen waaw li tax ngeen ñëw fii ban ba ba ñëw ba sama kër. du dug ci benen kër xena bu mo fa dugul du ngeen du la du la amal du la sop dal du ngeen ko sop ba ñew ci mom ay boy gënaaw bañ leen nuyoo ndax tay bëgg nga takali ko gi ni waaw xam nga da ngeen di laaj rek. waaw da ngeen di laaj parce que laaj mom yaqul dara. mu mel ne lii diisal na yaram bi parce que yépp yéré ak yoy yépp mi ngi lang lépp ay wéñ la ndax bo tëddee di nelaw lég lég wéñ du lay gaañ. naa ah kay dafa may gaañ. dafa lay gaañ. dafa dafa mais bu mais léegi booy booy tëdd pour bañ weñi gaañ la naka ngay tëddee. tëddal ñu xool. sa waaji sa yow yu woon weñ yi du nu est-ce que du nu la neex ngay tëddee bu fekkonte ne du woon weñ yi nu la neex ngay tëddee. waaw mais weñ yee tax mënoo tëddee ni la neex. waaw ndax wàll yu ak nit ñi ñi ñu bañ ñi comme ñi ma njëkk ñi ma njëkk léegi moo loolu moo tax may tëdd noonu mais bu njëkk su ma neexee nu tëdd bu nekkoon affaire bi weñ loolu moom bu soobee yàlla di nga ci delluwaat tey tey bu ñuy tàqali ko ak yow bu buñ lay bàyyiwaat fi nu la neex ngay tëddee sànni tànk fu la neex loolu moo tax ñu jógee Dakar ñëw ngir dimbali la te yàlla rek tax Baye Paa mu mel ne gis nañ ni même ba ci ba ci yii nii sax gis nga ay weñ yu diis la fi takk maanaam gis nga lii lépp ay weñ la yoo xam ne ñoom taqali ko ak seen sago wax na dëgg ah kii du mën a tëdd normal parce que weñ yi da koy jam moo tax saa su nekk ñu ngi sant ñi nga xam ne ñoom ñoo def intervention ñoom ñoo woote parce que gis nga Baye Paa xoolal fi ni may jam sax man daf may jam aya gis nga te moom mi ngi koy jam ci yaram bi kon kii ñaata temps la def ak lii ñaata temps la def ak lii moo tax ñu ngi woo dëkkandoo yi ci képp koo xamante ni gis nga ku mel nii ci sa koñ mu leer na ni mënuloo ko dara contactel ana taxu ñu wéri di te yàlla tax dañuy def déplacement gratuit ñëw dimbali malaat bi gratuite te jëmm yàlla rek tax lii ñun ñu ngi jugee ko ba dakaar ñëw fii ngir dimbali ko te yàlla tax te fii mu dëkk koñ la boo xam ne ay nit a ngi fi dëkk donte ni ñu bari dañuy daw malan mental ñii ko ci jégen naxtaan ko wax deug yalla li ku ci xooloon muy sa wayjur doko baye ak li fitna bi te ki dañ koy door gis mais biir nañu ni yag na ak mom kon nak euh, wax deug yalla association en taxu ñu wéri la solution des malades mentaux inshallah rabbi tay dinañ def fi ci mbuur liggey bi mucc ayib ndax jaamu yalla ci jaama ñi mooy fexe tàqale jaamu yalla ak fitna ta suñu baye bi biñ ko laaje ndax bëgg nga kula ak fitna bi lim jëk wax rek moy waw kon nak wax deug yalla en taxu ñu wéri la solution des malades mentaux Just sound. defoo ko ko yàlla nga ko digale war lii xaw ma ñaata kilo la mais gàtt gàtt pesé di ak 15 kilos yoo xam ne wax dëgg yàlla sama benn loxo bi ma ko téye nii toqi na te li ma ci gën a jaaxal rek mooy ay findi fer la yoo xam ne ak ay feer ay weñ lépp loo xamante ni daal luy lor doomu aadama la mu ngi ci ay butéel ak ba ci ñun ñi ko doon dindi sax gis nañ ni wax dëgg yàlla mi ngi nekkoon di jam suñu yaram yi kon moom noonu la nekkee woon ak moom te li ma ci gën a neex rek mooy jamono biñ ko koy dindil da ngay xam ni kii ku yàkkamtee tàqale ko ak fitna bii la parce que bañ na ko ba bi mu koy wax nee buy tëdd wet lay tëddee wala ko lan moo koy guider pour mu tëdd mooy col ko gi nga xam ne moom la sol nekkul nu ko neex lay tëddee mais ni neex li mu def ci yaram bi lay tëddee parce que bu tëddee yenn côté yi da koy jam looloo tax muy obligé di jaaxaan nit ku nekk da ngaa a tëddee sa sago tëddee nu mu la neexee te loolu lañ bëgg ci moom tey waaye wax dëgg yàlla lii ñu fekk ci moom tey ci mbuur wax dëgg yàlla suñu xel dem na ci ki nga xam ne moo di Baye Ndiawar donte ni moo ko gënoon diis la moo ko a metti la waaye kii nag lu yor ay jam-jam moom la defoon ci yaram bi nga xam ne bi ñu koy dindil tubay ji sax ñu ngi koy wax ne ko xoolal ni nga yëkkatee tànk bi ngir bañ rek yii nga xam ne moom la ci def jam ko daal wax dëgg yàlla. yaakaar ngi fu ne ànduma ci loolu lépp a bokk ne fa yàlla li tax mënuñu ko dafa dafa bari anam yu mu làmb ndax dëkkandoo am na ci lu bari loo xam ne tey soo ko defee mën na am bët bu ñu la xoole waaye bi leen yàlla tàggatee ba ngeen ba def lii ci seen xel lii dañ leen dañ leen di jaajëfal ndax ñun bëggoon nañ ko en réalité mais mënuñu ko comme mënal ngeen mënal ngeen ñu ko nag ñu leen di jaajëfalaata bu baax nag di leen ñaanal yàlla yàlla sàmm leen sàmm seen kuréel gi ba nga xam ne lépp lu ngeen ci bëgg rek mu kawe seen njort yaakaar naa su ma juumul euh, seen objectif mooy mu am benn malaat mantu boo xam ne doxatul taxawaalu ci mbedd te loolu yéen a ngi ci yéen a ngi ci béy seen waar bu mat ba mu mat sëkk yal na leen yàlla gën a sàmm gën leen a taxaw waaye xale bi ngeen ñëw tey daal li ngeen def jàpp nañ ne defalu leen ko seen bopp mais quartier bi ngeen ko defal ñun ñi ay frère am parce que frère laa mën a wax ndax nu ngéwél ñëpp benn bopp lañ waaw ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay rawatina nag ay waajuram ak sunu waajur ñoo dëkk fii yàlla indi nag dogal bi ci kawam ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax ci taxawaay bi ngeen taxaw ak li ngeen def defalu leen ko kenn ñun ngeen ko defal waa quartier bi Aliou Ngom Bour maa ngi leen di eh, jaajëfal bu. Aliou wax nga dëgg. lii ngeen def tey ñun dañ see kontaan démb rek fee may liggéeyee ki may àndal moom ma koy wax naan ma xaw na nanuy def ba am numéro gars yi jël si woon aram fi la sa école ya Daaru Salaam parce que kii sunu rakk la te ñoo doon ànd di tëgg ñun ñoo doon ànd di tëgg lii da koo dab li ngeen def nag yéen ko xam waaye yal na leen yàlla jàppale defalu leen ko kenn nag ñun ngeen ko defal sunu mbokk la ñun ñoo doon ànd di tëgg ay sabar guddeeg bëccëg waaw démb rek lañ leen doon xalaat naan xaw ma ñuy def ba am seen numéro pour woo leen ngeen ñëw jëlal ñu ko kon li ngeen def nii xamu leen ko sax yal na leen yàlla jàppale ni ko booy bi waxee rek ñun ay doomi Bourgéwél lan ku ku silwisee ngi woon nii ku mënoon a tëgg ngi nekkoon nii ba barki démb rek la ñu romb tey boo ko bu ma taxawoon tey mu jaar sama tour bu ma taxawoon tey mu jaar si sama tour waaw. asalaamaaleykum euh, presse bi maa ngi lay maa ngi leen di ziar. ziar suñ dëkkandoo yi waa koñ bi en fait maa ngi tudd Mamadou Samb maa ngi dëkk euh, Daaru Salaam euh, fii mooy quartier Daaru Salaam en fait euh, malaat bi ñun ñoo suñu dëkkandoo la ñun ñoo nekk fii des fois sama sœur bii nii moom moo am initiative bi donc ñu gis ko ci koñ bi mu doon koo xam ni vraiment boo ko gisee su waxtaanee ak yow di nga xam ni kii nii xam nga da nga naan nit ku di la. tu comportement euh, su ma nee ci comportement tu habillement mais so waxtane ak mom di nga xamni ki kii xel mi dara nekku ci ñu gis ko mu doon ko xamni ni à chaque fois bu jaaree fi dañuy kaf ak mom di reetaan ak mom donc sama sœur bi moma xamal ni ma amna ñuy yëngu ci ño xamni tay bo leen ko waxé ñom paré nañ pour mën ko jappalé pour mëna a euh, dindi affaire yi nekk ci mom ndax euh façon findi feer ak weñ boo boo ko gisee yéen am am ngeen vidéo yi ndax ñun ñoo leen ko envoyé gis ngeen nu mu méttee mënoon na ko indil yeneen complication mënoon na ko ba leneen dal ko ci donc loolu moo tax ñu am initiative boobu après envoyé leen vidéo yi pour yéen euh, comme que yéen a ngi yëngu ci loolu ngeen ñëw jàpp ci bàyyi Assalamualaikum. maaleykum salaam Baye Boye noo tudd Mbaye Ñing Mbaye Ñing waaw tey nga gis lii la ànd taxaw ñëwee defaat lan ngay wax ci lii ñu la defal lii koy kontaan ci gur ndax góor moom fu mu ñëwee ci wax bëgg mhm. gu war na def mhm. bu gur góor gu baax la mhm. bu dee góor gu jub la war def ak lépp war na def ba pare lep. lépp loolu mooy fulla loolu mooy yoon man loolu laa gis daal bi ngay ñëw teguma ci baat. fan yii ni nga doon yëgee tàngoor wi ak tay bi nga sangoon nii ba pare lan ngay yëg. fu mu toll nii kay laa yëg. waaw. jàmm dong laa lan ngay wax ñi la defal li gërëm dong sant. sant yàlla sant leen. waaw ndax ki lay def ki ki defal ak ki lay wax moom moo la leen fay yàlla moo leen mën a fay boo la amee yàlla moo leen mën a fay boo la yàlla moo leen mën a fay ndax am na ñoo xamante ni duñ la ko wax bala duñ la ko defal bala duñ la ko. waaw duñ ñëw sax si yow. ndax nit ñi yemuñu nit ñi bokkuñu waaw sant rek jën ci gërëm dëkkandoo itam sant rek. ndax fii moom amu sens interdit man sama kuul sama kuul bopp jàpp sama njàmbur laa jàpp. waaw amoo ñoom affaire si li ma war a ñoom laa seq ñoom jàmm xam nañ ma xam naa leen seq maa ñoom leneen. nga nekk euh, waaw waaw ci lépp. yë

foofu baax na. waaw boobu boobu nga bàkk moom mooy lan. nan la tudd. bàkk bi nu mu tudd. bàkk bi waaw bàkk bi xam nga bàkk bi moom dafa bëri te wuute. waaw ndax ndax nit ñi ndax géwél yi géwél yi bokkuñu am na géwél yoo xamante ne nii ku ci ne bokkut ak sa moroom waaw. mais bu bàkk dina diggante ak moromam. waaw dina bokk dina bàkk waaw. ndax mën nga ñëw bàkkal mbaaru bukki. wurete gi wurete gi cee cee cee ki cee cee wurete gi wurete gi wurete rekki cëg kan ñu sant yàlla bu baax ndax commande taxaw ñu di moom ci li lay dox ci ndimbal ak yërmande kool ku ko yitte woo rek mu defal la ko ñun saa bu ñu dimbalee nit rek dañuy bég dañuy kontaan dañuy am mbégte ndax ku gis bi ñu yëgsee ni mu mel ak ñi nga xamante ñoo doon taxawu yére yi mu soloon ñoom bàyyi sawru ñoom bàyyi amet sugu ñi nga xamante ñoo doon summi yére yi mu soloon ñoom wuri ku nekk xam na ne doon na daj coono ndax da ngay gis sax bàyyi sawru dina jàpp fenn war koo dagg find feer jam ko fa te find feer goo ko jam kon doon na ko jam moom teewul dindiwu ko mu bàyyi ko ci yaramam kon bu ñëwee dimbale ko ba tey nga dégg ñu ne ko biñ la sangee loo yëg mu ne xanaa sant yàlla sant leen kon ñu ni dañuy sant yàlla bu baax a baax ci lim ñu cërale liggéey bi ndax liggéey bi du du ngóor mooy tax nga bokk ci du yaafuus moo la ci tee bokk yàlla moo la ciy boole cërale la ci liggéey bi nga bokk ci di ci dox ndax du liggey bo xamanteni ni yomb na kon sant nañ yalla bu baax a baax a baax ci niñ ko taxawo jërë ngeen waaw euh, ginaaw ma sante yalla jullu ci yonante bi ma ngi sante vraiment di len sante yeen wa yeen wa Dakar yeen wa association taxawu ñu wérdi maa leen sant bu baax ah di len sante baax rek parce que li yombul <clears throat> liggey la bo xamanteni yomul yombul ndax malade bi wax deug yalla bi fi ñew ni mu meloon ak legi buñu gisee ni mu mel li xamna liggey bu liggey ngeen suñu borom liggey bo xamanteni ni mucc ayib la vraiment amuñu lu ñu lenn lu ñuy wax du dee ñaanal rek di leen ñaanal bu baax a baax parce que lii liggéeyal suñu borom la te képp kuy liggéeyal suñu borom la yàlla moo lay fay kon nag yéen ñi nekk association bi yëpp yàlla nañ suñu borom bi tabaaraka taxaw boole ñu lépp loo xamante ni ñu ngi koy liggéey yàlla nañ suñu borom bi defal defal ñu ko ay ay ay ay màqaam yu kawe kawe kawe kawe kawe yàlla mën na ko yàlla def yàlla na ko yàlla def parce que kii vraiment ku gis ni mu meloon ah ak fi ñu ko fekk daw daw na yaram ndax foo xam ne ni yaa ngi fa tëdd ab xaj dee fa ba médd fa ba ba nëb nga ngay dund loolu vraiment dara gënu koo metti kon nag maa ngi encouragé waa koñ bi di leen wax ne kii nañ ko jàppale parce que ci koñ bi la dëkk seen mbokk la seen lépp la nañu ñëw di ko nemmeeku si léeg-léeg di ko ne bu ci gisee loo xam ne ni nag su noonu la nañ woo waa waa waa waa an taxawu ñu wér ñu ñëw jàppale ko parce que ñun ñëpp lañ fi nekkal képp koo xam ne am nga loo métti sa malade rek boo ñëwoo incha allahu rabi doo ñëw jàppale la kon nag ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm sant waa Mbour soxna Ayda maa ngi koy sant vraiment jàmbaar la jàmbaar la jàmbaar la maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ndax léeg-léeg sax mu mu demandé ma ñu war a dem fenn sax man bu mu mënta dem sax dama ko jox paas da ko demal kon maa ngi koy sant bu baax di leen. saa kon Baye Pape euh, di am mbégte saa su ne rek bu ñu wàccee ci terrain bi di dimbale suñu mbokki jaami yàlla yi te jëm yàlla rek tax tey moom gis ngeen ko jógee ba Dakar ngir euh, dimbale si malade mantaal yi rawatina jëmm ji nga xamante ne nii dafa takkoon ay weñ ay weñ la defoon ci yaram yi ba mu fees dell ba mënul tëdd comme ni ngeen koy gisee noonu ci vidéo yi mënul dox fu mu tourné weñ yi di ko jam wax dëgg fa yàlla tey mbégte la si ñun ñu ñëw tàqale ko fitna woowu noonu bu ñu gisee bu ñu ko gisee tey jii nii mu taxaw nii dañuy am mbégte. baay booy ban message ngay lancé jaami yàlla yi. sant rek ak gërëm. waaw sant rek ak gërëm mooy mooy mooy lu mujj daal waaw. sant daal mooy man waaw sant daal moom. waaw yow ban message nga leen di lancé li nga xam ne ni maanaam moom la moom la malade di dund ci mbedd mi nit ñi nga xam ne dañoo nekk ci mbedd mi. Mhm. amuñu kenn ku leen dimbali. Mhm. lan ngay wax nit ñi pour ñu di bàyyi xel ñooñu. waaw xam nga xam nga man moom ma moom ma ñëpp. Mhm. nit ku ne moomoo kenn. waaw da ngay mën a wax. ñu jëf. bala nga wax nga def dañoo bëgg nga wax ñoom ñu jëf. waaw li may li may wax. pour lima ñam manké manqué fu mu toll jabar wa lima mëna wax pour lima lay mëna dolli jabar la manké wa jabar mo ne sama xel jabar lima mëna wax ni jabar mo ne sama xel te mom la bëgg wa fu mu ni nii xam nga li ci ñamuñu ni ke mën nga tal fee du ko bëgg te du la bëgg mën nga dem ba sax te du la bëgg mais fekk ni ke famu dëgg defal ko comme ni li moy bëgg nit li ngeen def ni ni moy bëgg nit mais ne fee di wax di ko bala nga di la xool loolu du bëgg nit nii ngeen defee lii mooy nii mooy kii lii mooy bëgg nit waaw man lii laa xam mais toog fan nga toog di wax li nga wax bala nga jëf li nga def doo dem doo indi doo ñëw loolu du bëgg kon ci kat am na taalibe ne fe ci ginnaaw fu ma jógee fa laay lekk bala ma jënd sama poos fa laay lekk fa laay rey ndax dama faa nekk nekk mu nekk bu rafet fa laay lekke bala ma jën sama xaalis lekk ndax dëkkandoo yi léeg kër yi kër ci kër damay lekk ci kër yëpp ci kër yëpp laa lekk ak ci kër yi waaw mais damaa kuul dama ñàpp sama njàmbur ndax bëgguma tooñ dama tooñ baaxul niñ ko baax du tooñ parce que liñ la mooy ba luñ la joxul tooñ la waaw boo buñ la ko may ba la joxul ba la yéene wuñ la ko loolu tooñ la loolu tegee tooñ la. waa léegi man li ma lay laaj mooy weñ yi nga xam si ni jëlee jële jëlee nañ ko ci yow tey weñ yi nga xam si ni tey dindi nañ ko ci yow mbaa doo ko delloowaat ci sa jëmm ji te yàlla rek tax. dëgg la mu la lii ma sal nii lii ma sal nii boo matul fi ngeen moom ngeen may gisee boo matul boo mat moom ngeen gis moom ngeen gisee ba may dee boo sagnul waaye la sama xel ak la sama xol jabar rek am ko. loolu mooy première séance mooy dernière séance loolu laay dox ah. yow mës ngaa am soxna mës ngaa am soxna wala mosoo am soxna. déedéet dama koy ñaan yàlla moo tax waaw dama koy ñaan yàlla moo tax. ak saa maa ngi sakku ci képp koo xamante ni ni nga xamante ni noonu ngay gisee koo xam ni dem na sëy ak silmaxa jaamoo ci yàlla te yàlla tax nga gis ñoo xamante ni dem nañ sëy ak ñi nga xamante ni amaan na ay muuma lañ yàlla dénku leen kàllaama ñu jaamoo ci yàlla te yàlla rek tax. jëmm a ngi nii joo xamante ni kan moo ciy jaamu yàlla te jëmmi yàlla rek tax kan mooy ñëw jaamu yàlla ci kii ndax dégg ngeen ko li mu wax nee na moom moo ko dese ci kaw suuf mooy lan mu am soxna te yàlla rek tax mu am soxna te yàlla rek tax dégg ngeen yaa Aida moom ñëw na volontaire na nee na fas na yéenee doon soxnaam yaa Aida da ngay caaxaan wala. caaxaanu ma de. est-ce da ngay caaxaan. non non non caaxaanu ma dox leen ko. bu ñu ko doxee dinga ko di ko def. ak saa yëkkun sunu xol tooy na ndax wax dëgg yàlla loolu yéeme na màgg na yaay da nee na day volontaire so yow ku baax ndax nopp nga soxna si. waaw ah, nam noo koy ah, jigéen loo koy bañee jigéen bu ku ne la bëgg naa la koy ba bëgg loo loo loo ciy tege baat loo ciy loo loo ko ciy tege baat. loo koy amul tege baat lu ma ciy tege. léegi nan lañ koy doxee bu ñu doon dox pour ñëw euh, dem. comme ngeen defaat nii rek ngeen defaat ñu fekkaat ma fii du ma dem fenn. ndeysaan nee na du dem fenn ndax pare nga pour jóge fii. jóge fan fii nii. su su ma amee jabar. waaw waaw su ma dem si kër jàmm may jëppi. jabar jàmm bala yegg jabar bala leneen leneen comme jabar kay da ngay toog waaye ku amul da ngay doxi ku am jabar da toog waaye ko amul da ngay doxi mooy kàddu yi nga xamante ni moom la jëmm ju tedd ji euh, euh, wax mu nekk ay kaddu yu am solo te ni ko yaa Ayda waxee xam naa ni dinañ jéem a xam nan la ñu mën a def pour loolu noonu ñu daal di koy jëmmaal ndax yaa Ayda jaamukatu yàlla la te li mu wax nii man leer na ma ni ci biir xolam la ko tibbee ndax ku ko ko may dina sëy ak moom kon ànd taxawu ñu wéri di ñëwoon leen leen fii ci diwaanu Mbour ñu fas yéene utali fële ca diwaanu boor croisement Saly ci malade mental bi nga xamante ni doon na xeex ak benn waay mu xool ko ba mu neex ko mu daal di tàngal ndox mu tàng sotti ko ci kanamam kooku tey dina xam ni lépp dëgg la.